yàlla baax daal maa ci loxo yàlla rek. yëpp moom sax et puis li am leneen lu ñu jaaxal ci biir combat bi réeré di tuus ñu gis Sa Thiès mu génn dugg ci oto dem fan la demoon. daa moom nu ma jëli yoon rek man maa ko fi jëlee en personnel. foo ko jëli jiwoon. soriwul. ñenn ñi kër nga demoon sanguwaat door a ñëwaat. non <laughs> non mu digga demoon ngem waat sangu ngem ñëwaat. ne ma Sa bi mu dafa ànd ak Balla ak Bousse dem këram. non yàlla ma Lamine mi sa la àndaloon. ak Fils de Balla ba may génn. fan mais génn ngay stade bi li mu jaaxal. yàlla xam ne génnuma stade bi damaa génn fii mais génnuma stade bi. génn fii kay. ah déet stade bi nii yëpp la stade bi. stade bi stade porte bay la tàmbalee de. mais da ngaa dugg ci oto dem. waaw. fa nga dugg ci oto garab fii ay fii ay mën naa ñëw ba nii yëpp ay oto fiy dox. waaw ah, waxal fi ko demoon parce que loolu bésu nguur koo gis mbër mu ñëw ci làmb dugg génnaat ñu ngi koy door a gis. ah yàlla baax na. Fara ñu gisee ko noonu rek yaa ngi nii ku ne nga dem loxo di di di di jënd. man damay social. social moom moo gën a nag yow lépp barke nga def fu toll nii te daal kontaan naa moom. yàlla na la ndam li jik sa adversaire loo koy waxaat tey. non dama koy encouragé rek wax dëgg yàlla parce que tamit mbër la xale la mu ngi ci yoonam di ko ñaanal prochaine fois bu retour sama mbokk aussi tamit yàlla ko yàlla may ndam. merci jërëjëf ba tey li ma a may ma ko ñaari baat may ma ko siyaar naa la. doo weer. waaw mën na koo dem parce que doon gis combat bi ah, ba ah. léegi nga ànd ceeg saa bu coow amee yaa ci jóge seen la ca nga da cee coono tey ñu jox leen victoire tey lan kay wax. waaw santaat yàlla rek loolu lañ bëggoon ndam rek lañ si bëggoon moo waral coono yooyu yëpp ndax kii moom sunu deret la mooy li may wax rek ku ko laal laal ma waaw. mais tey combat bi sax am na combat bu ne mais ñu gis tey combat bi ni ni nga chargé woo. waaw ndax loolu dafa maa war nag fi mu nii waaw loolu dafa jot maanaam bu njëkk wala naan foo di ñëw si làmb léegi nag loolu dafa jeex léegi dafa jot léegi ñu téye làmb suñu loxo ndax léegi nekkatul mbër mu ndaw boo la ne naan nii wala ñu naan naa waaw léegi dafa egg si ay moroom daal yu war a mbër ay magam. ëllëgu Sa Thiès ñi ne Tapha ñi ne Eumeu Sène ñi ne Bombardier yow koo bëgg yow. ku ñëw baax na damaa aay si ponkal. moom lu mu gën a diis bëgg. Bombardier ngeen di menacé. lu mu diis bëgg naa lu mu gën a diis bëgg. Bombardier ngeen di menacé. lu mu gën a diis Youssou Ndour Bombardier ngeen di menacé. waaw Bombardier waaw Bombardier nañ jël saa kees. da leen di rey da leen di damm da leen di daan ba dammate. Bombardier mënuñoo rey di dammate. kii li muy bëri arrangé wul gars yi. gis fan yii bu am gaañ si loxo bee tax ngeen bëgg koo ñëw. Bombardier li mu def kii Tapha Tine bu ko jëlee saa saal da ngay gaañ. da ngay replayaat. Ah, man Tapha Tine sax laa gën a soxla. allo billaahi tafaati meru lan Balla Gaye yéen la koy soxla billaahi tafaati a soxla sama lan la mu loolu du ma ci wax dara kaay ba ci li may wax rek kaay direct bi direct bi kaay ba taal oto Sathiès mooy dem nii Omar oto Sathiès mooy dem nii jël na victoire ba ngay dem Matar Ndiaye yaa ngi ànd